السلام عليكم ورحمة الله ما كين يلين يدي الانزار ننبال حق دي الانبال ننبرم سبحانه وتعالى مولين يجقل نيوسين دروس رمضانية رقم الثالث والعشرون من يمنى الإفطار في نهار رمضان فقد أفطر وإن لم يتناول شيئا من المفطرات المالكية الحنابلة الله أعلى وأعلم من نمكار نميرو فانتراو wala màndarga ñaar fukk ñett mu ne képp ku yéene dog kooram ci bëccëgu weeru koor na yëg ni dog na doonte ne lekkul dara yàlla mooy ki xam lépp masalan ki nga xam ni dafa woor dem bay côté midi wala une heure wala deux heures wala trois heures jekki-jekki rek waxuñu xelam nekk ci dog de mooy mu décidé ne dafay dog décidé na par exemple ma décidé naa su ma gisee ndox damay naan wala su ma gisee ceeb lekk wala may dem di ko wuti pour lekk bi ma demee ba gis ko ba toog ba war a dog rek daal di delluwaat ginnaaw daa yegg ni sama koor yàqu na loolu lay wax parce que yéene ba mooy tax boo demee ci mazhabul malikiya wax jooju la lañuy jàpp ak ñi nga xam ne ñooy mazhabul xanabila yàlla defal dégg ak topp qul qawli hada wa astaghfirullah azim li wa lakum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته